ay information bés bu ne ngir képp ku bëgg jënd ak loué ci bërëb bu mënti doon léegi nag yomb na ndax seen ëpp imo application bi ba ci site internet bi prix yu accessible nga fay fekk ak seen ëpp imo mën nga seet saytu jël rendez wala sax créer say alerte ak seen ëpp imo daal coono jeex na ba tey nag ñu ngi Soumbédioune tey boo déggee tëgg mi ak way yi sa xel day dem ci làmb waaye rawante gal moo ñu fendi tey Baba Diaw ñu tudde ko bés bi Diène Kaïré doomu Soumbédioune Diène ginnaaw bu ma la nuyoo mbaa yaa ngi am jàmm waaw ñu ngi sant yàlla di julli si yonent bi di sant suñuy ñaari waajur Babacar di rafetlu seen teewaay fii ngeen bàyyi seen yitte ñëw fii nga xam ne fii mooy sunu bok fii mën naa ne fii lañ jàngee bëri ñu Soumbédioune tefes bëri nañ ba nekk ay xale yu ndaw a ndaw jàng bëri ba ba pare ñu jël rawante bi teg ko ci loxo Baba Diaw nga xam ne tey mën naa ne yaakaaru Medina Medina ñoo ko yaakaar xam nga mu seq ak jeunes yi lu rafet waaw Medina yëpp nekk si ginnaaw ñu tuddee ko drapeau kon lépp lu waaye def da ngay bàyyi loolu ñëw tey jeunes Medina yëpp dañ bàyyi li ñuy def këram lañu yendu ñëpp waaw ñëpp fa lañ añee di daal xam nga ñëw gunge ko ci bés bi en plus tamit xam nga sunu dëkk ay mooy Soumbédioune di leen félicité tamit si ndam yi jël nii rek di wax gars ne xam nga xool yëpp seddal Soumbédioune moom yàgg na yàgg na faj gars yi ci rawante gaal faj ci rawante waaw dëgg la waaw yàgg na faj gars yi waaw di lancé waale appel tuuti rek muy wàllu problème bi am temps yi ci mool yi dem ñu géej ku ne xam na ne mool géej la yaakaar feebar biñ tudd tax na ne jën yëpp dafa commencé lamb kenn ñëwatul jënd jën te lool yëpp xam nga war naa mën a di wax nit ñi ñëw jënd ku gis di feebar am moo ni di fecc di bëggee ñu ngi ñu ngi masawu ñu ko am di ñaan yàlla mu jeex xam nga mais gars yi gaaw li jënd woo ci géej parce que mool yaakaaru lu du géej di wax tamit xale yi bàyyi seen lépp di dem si gaal yi nañu fàtte loolu ñu toog reyante wërsëg ku mu nekk yàlla dara fay fekk waaw nañu bàyyi loolu lii wóorul xam na gis nañ ñi ci ñàkk seen bakkan bëgg nañ dimbali suñu yaay dëgg la mais boo demee def sa tamit mën naa ne da ngay yokk maire yi naqar ñi ci tamit yàlla yërëm leen xam nga di wax ne nañ toog daal xam nga yàlla jeexul yàlla fi nekk mën ngaa joow gaal ah mën ngaa joow gaal yow am na bu baax la ci joow waaw ana ana Modou Anta yaa ngi koy dégg waaw Modou Anta gëj nañ gisa depuis signature ba nag mais maa ngi koy nuyu au passage xam nga di ko ñaanal jàmm di ko wax ne na entraîné bu baax waaw parce que jéen Modou Anta bu njëkk ba ñu moom laa bëgg mu ñëw bés ba moo doon dafa daan ñëw nga bëgg mu ñëw. ba daan ñëw moom laa bëgg mu ñëw ndax ma mën a wane sam bopp. waaw loolu laa koy ñaanal bari incha allah mu ñëw ñu jëflante. li mu jàpp ne yow da ngaa wane yëfu maanaam yëfi koo xam ne daf jëloo say responsabilité waaw bi ngay bëre ak Quench jàpp na ne loolu bu ko andi bi yoon wax boobu loo ko ciy tontu. waaw loolu loolu waxu mbër rek waxu mbër la day jéem a teg xel mais moo daan dama leen rek laa koy wax li muy wax ni yëpp dëgg la na ko dëggal te loolu dama bëgg ngeen wax jéem nee na li ngay wax nii di ko duma di nga ko daan ko yooyu bu ko bu ko dëggalee combat bi dàq saison bi ñoo koy ñoo koy bëre parce que man ko arrièreal. doo arrière non non du ma mais bu mu bu mu jël ba jour ba parce que ma yàgg dal ci ay mbër dañuy wax wax jéen jéen jéen comprendre nga bu war bi ciblé ñu ne non maa war a bëri te ñeen ñaar ñoo lekk avance li mu noonu na ko dëggal man ma dëggal ko nga xool làmb ji du yàgg muy ci bëre muy ci xeex nag dóor mu daanu waaw waaw na ko na dëggal xeex bi wala mu indi bëre bu dee day yooru tamit am affaire mag la ñu du ñay seer waaw na ñëw li muy wax na ko dëggal rek waaw ñu bëre combat bu neex ma ak moom maa ngi ñaanal jàmm nag xam nga di sant ñi fi teew ñëpp ñi ma àndal sama gaay yi xam nga bàyyiwuma kenn supporters yi ñëpp maa ngi leen ñaanal jàmm waaw di wax ne daal kontaan nañ lool daal si yéen ak seen déplacement jaayef ay information bés bu ne ngir képp ku bëgg jënd ak ci bërëb bu mënti doon léegi nag yomb na ndax seen ëpp imo bi internet bi prix yu accessible nga fay fekk ak seen ëpp mën nga seet saytu jël rendez wala sax créer say alerte ak seen ëpp imo daal coono jeex na